réew mi buñ bëggee faj problème mu emploi ñu jox ko créatrice d'emploi problème mu emploi jeex waxtaan waxante dëgg la ci nañu def la rupture systémique et la rupture systématique te ñu moytu ma riirandoo ma riirandoo xam ngeen mooy lan mooy moo xew mooy ah man de joxoñ naa kële ñu jël suñu réewu lëmm jël suñu avenir u mais rek dénk nañ la ko parce que yow joxoñ nañ la mel na ñun dañoo rupture ay nit ñu baax mel na ñun dañoo rupture borom mi xel buñ toogee naan ñu diw mooy diw dem leen voter diw parce que diw mooy diw yow loolu di ko nangu mais ñun depuis kañ lañu war a ñàkkee xel ñàkk xelu bu tool noonu man nag dëgg fu ma ko fekk dama koy wax fii xam ngeen lu wóor ba wóor mooy Anta Babacar mooy Anta eh, Babacar mooy Anta Babacar